Aïcha gars nuyu nañ len bëgg nañ leen siyaaraata niñ len ko waxe rek ñu ngi jof yor set si Doudou Sané Khadafi bu yor han ah, champion bu mag bi le meilleur lutteur de la saison 2020 2021 waaw ki nga xamantene fi bo len leen dégg bilaam fi ci Sénégal def na lu tolok 17 sorties ci 17 sorties yoyu. jël na ci 10 drapeaux daanut ñetti yoon final ak ñetti yoon yo xamne ñak nako demi final ben yoon quart de final bo rewon na aussi fi nga xamantene mom moy Gambie fa final bëre aussi fi nga xamantene mom moy Casamance jël fa ñaari drapeau suma djumul mhm. lolou moy bilang bilan wu saison Doudou Sané ñu gis na Doudou Sané lamb ji dafa tëjoon fi ci Sénégal bimu mu gaay di dem bëre ji Gambie Doudou lamb jaral ko mu dem fii bëre ji ba pour pourquoi pas Doudou xaarul woon ba lamb tijji Sénégal muy soog a bëri mais avant loolu dañ lay bàyyi nga nuyoo soog a tontu waaw euh, Lamine ñu dëpp si waat rek di jaajëfal ñëpp di kontaan si ñëpp nag euh, di jaajëfal fan si bu baax a baax. ndaxte lépp nag ñu ngar ko nag ci bëgg làmb mm-hmm. làmb di suñu métier. yaakaaruñu leneen yaakaar làmb kese. Mm-hmm. ndaxte keneen ak keneen bu ñu xëyee dañuy dem liggéeyi. ñun itamit làmb la ñu yaakaar fu mu am itamit dañ koy toppi dem dem waliyaani dem bëri ji ngir am lu ñu suturaw ak suñu njaboot ndaxte loolu la ñu yaakaar bàyyi nañ lépp ngir làmb te làmb kon làmb daf ñoo war a jaral fu mu am ñu fekk jil pour bëre léegi moo loolu waraloon ngeen dem fii ba Gambie bi nga demee keroog ki nga xamante ne moom mooy Libidor moom moo la fa daan final. waaw bi ñu naan set na wala setul duudu ba tey bi mu ñëwee seetaan vidéo yi d'accord na wala d'accordagul non final bi ba tey nii ah. waaw ah. mënuma cee commentaire sax ndaxte moment yooyu daa fekkoon ma désinstallé sama whatsapp bi. Mhm. moment yooyu xam nga durant corona bi day am moment yoo xamante ne damay dindi sama whatsapp bi. Mhm. am moment yoo xamante ne damay installé waat sama affaire yooyu ndaxte euh, nit mënul nekk si ñaar mhm. ñàkk xaalis euh, ak itamit. topp di internet kese yaakaaroo si dara mhm. ñu lay yenn wax yi du dugg affaire yooyu yenn commentaire yi tamit waa nga koy déglu mhm. du ko jar mhm. comme yàgg-yàgg lamb ji dina tëji man lu nekk dégg naa ko si saison bi Doudou naan ay protéines daa jël ay affaire loolu yëpp dégg naa ko mais xam lu tax damaa xamoon ne yàgg-yàgg saison bi dina tëji te ku amul doole yi dina rus mais jour boobu aussi nekkoon deuxième fois bi ngay daan Cheikh Tidiane ñaa keroog. Mhm. sa combat yaa ak Cheikh Tidiane foofu gam mun nga cee revenir. ma sa sama combat yi tamit la rek. Mhm. lu mu doon bëre ak man di ma daan loolu laa koy daane. Mhm. ndaxte day daw jël ma. bu bu na ma sëf ko sama poids dox ci kawam mu toog. ok doole yi moo bokkul gabarit yi bokkuñu gabarit. Mhm. waaw mais tension bi keroog mun nga cee revenir combat bi avant combat bi pendant <coughs> xam nga Seye ku ko topp mhm. sa xol jeex. mais damaa dem ba miin ko. essence mhm. yi day def day wax day def lu nekk des fois damay dem ba sama xol jeex ci moom mais combat bi bu ñëwee damay xam ne lii bëre bëre la kon itamit sama xel lay jiital. moom encore day essayer jaar ci sa kaw xel commencé mer loola. indi la bataille psychologique indi la bataille psychologique te loolu mënul jàll affaire de naxante yooyu loolu moom mënatul jàll. Mhm. am nañ doole liggéey nañu boo indee naxante dañuy indi doole. Mhm. waaw loolu moom loolu kese la ñuy dund instant yi doole rek daan dem. loolu la ñu gëm. kon yow da nga gëm ne léegi da nga ko ëpp doole moo tax nga koy daan. kese. Hmm. du leneen. Hmm. affaire du secret de. Eh. Mm. doole kese la dama kaa ëpp doole dama liggéey am doole. Mhm. loolu kese la du secret. léegi bi ñu jógee Gambie du Sané def première sortie fi nga xamante ne moom mooy arène nationale fii fee Dakar. Mhm. du keroog bu muy dugg si ni ñu ko waxee ci séeréer xam nga nu ñu ko waxee ci olof ak xam na jamaleel jam fi del tiye fel mos a jam tam bi gëye mbu xoox Doudou Sané ni mu dugg see keroog affaire yi neex trop muy bëre ba quart de finale ki nga xamante ne moom mooy Serigne Ndiaye daan ko keroog sa première sortie fii au niveau di Sénégal nga ñàkk ko noo ko noo ko dundee. métti na trop mais itamit dañoo gëm dañoo gëm suñu bopp. Mhm. xam nañ ne bu ñàkkee fi. Mhm. ñàkkee feneen itamit. Mhm. feneen dañ nañ fa am. mënuñoo teglante ay tournois te jëluñu. ndaxte itamit gëm nañu ñàkk am na de. moo tax itamit dañoo gëm ne lu ñu munti ñàkk. bu ñuy continuer di bëre dañuy am ndaxte liggéey nañu doole boobu te moment yooyu ngay wax ni moment yu neex la woon moment yu may dugg si boobu dama kontaan sama xol daa sedd guy mhm. ndaxte lu ma nam li nga woon làmb li ma namee woon làmb ak nu mu amee ak man ma bëre mhm. loolu non moment yooyu daa neexoon de war gis say ñu booba <laughs> parce que instant gaa yëpp namoon làmb bilaay waaw nga ñàkk ko ñu gis ne da nga faa jóge dem Joal jël ko si kaw bandi 40 ans mu doon relance lamb jooju keroog aussi mu nekkoon lamb ju neexoon. Mhm. mais du nan la ñëwee keroog Joal. waaw Joal yi tamit comme d'habitude rek comme nu may duggee si lamb yi rek. Mhm. fulla ak fayda. lu sama borom sedd ma jël loolu. Mhm. kese loolu laa indi woon. waaw. léegi Doudou Sané jël na fi nga xamante ne mooy Ndangaan deux fois jël Fimela deux fois. damay revenir ci benn affaire parce que Ibou Ndiaye day faral di wax ne li ko jalee croisement Ndios moon ba Ndangaan mbër bi fuy ñëw na sóoraale ki nga xamante ne moom mooy du Sané ak ibu Ndiaye parce que boo ñëwee duñ la may dara ñoom seen objectif mooy li ko dalee njoos moon ba Ndangaan arrondissement fi mu laa daal zone bi suñu zone bi ku fi ñëw bëre si ñoom ñoom ñoo war a jël lamb yi te dañoo gis ne loolu moom moo fi am parce que Ndangaan deux fois yow yaa ko jël. Fimela nga jël ko benn yoon Ibou Ndiaye jël Diofior ñaari yoon jël Fimela benn yoon jël Loul Sessène lamb yi fii nii yëpp waa Diofior yi ñoo ko jël moo bëggoon xam loolu da ngeen toog waxtaanee ko mu doon benn affaire boo xamante ne seen objectif la wala paa yi ñoo leen ko garanti si maara yi wala nu mu demee noonu lamb yu tëgg fii ngeen jël quoi. non non moom euh, pourtant. Mm. bari na ay saison yoo xamante ne itamit. Mhm. fii la ñuy bëre. Mm. suñu borom li ñuy sutura ñuy jël làmb yu bëri fii mhm. mais du question de garantie ay pas mhm. moom daa woolu boppam daa gëm ne mhm. xam nga nit ku ku liggéey rek gëm boppam moom loolu la gëm itamit bu ñuy jël comme wax bi tënk ko ci fenn ci affaire mystique affaire mystique gaa mystique am na mais liggéey moo tegu nit ki boo koy xool muy am te yorul doole ci ngay calculer affaire mystique mais nit ki day jël liggéey doole bu mat sëkk chaque jour nga koy gis muy daan dooleem di liggéey mhm. waaw waaw mais instant nit nag loolu loolu itamit loolu mooy njëkk ci làmb doole parce que des fois gars yi dañ doon jóge fee di ñëw di jël làmb yi biir Diofior wala fi arrondissement fi mu laa gars yi nga xamante ne ñoom ñoo fi dëkk neexu leen woon mais xoolal ba yéen seen biir da ngeen dëggante ne loolu dafee war a jeex wala non wuñu loolu de mhm. mais xoolal nag depuis bu ñu débuté maag Babou Sarr mhm. fekk nañ fi ay suñu grand mm-hmm. ñoom ñëpp ay borom baax lañu ñoom Mbour Tefess ñoom Pape Sarr ñoom kii ñoom Bambu ñoom maam ñoom Matar affaire yooyu ñoom ñoom Babou Simal gars yi ñooñu ñëpp ay champion lañu mm-hmm. mais itamit ku nekk ak lu la yàlla sedd rek di mm-hmm. dañoo fël yàlla sedd ñu suñu yoon bu gaaw affaire yooyu ndaxte itamit bëri na ay mbër jow biir Diofior Diofior dañoo bëri ay mbër mais yàlla moo dogal ñu dogal ñu ngeen ñoo ràññi mais du question dàq leen ci bëre ndaxte bu nekkoon ci question dàq bëre kese ñun ñooy jël ndaare loolu laa gëm man bokk man maa jël ndaare biir Diofior mais question de sens la yàlla mooy wërsëgal nit ki sens am nekk ci làmb affaire yooyu moo tax depuis bu ñu tàmbalee ñu commencé di yëg kii raw gadu pour raw gadu génnati jox yoo day jafe mhm. ñu dem tànk pour tànk génnati jox yoo day jafe poids lourd nag noonu mhm. mais tamit sant borom bi la bi ñu am loolu ndaxte amoon na ay temps lamb ji si ma lan nekkoon mhm. lamb ji si wàllan nekkoon lamb ji palmarin lan nekkoon ainsi de suite ak mar affaire yooyu mais kon lamb ji bu demee ay jiraas affaire yooyu kon lamb ji bu demee tey itamit ba ñuy lamb ji mu ngi joof kon sant borom la ñu gën a liggéey ñu gën a concentré loolu yàgg loolu yàgg mm-hmm. di ñaax nag suñu ndaw ñi nekk biir mm-hmm. Diofior ñu gën a mm-hmm. góorgóorlu ndaxte lamb ji benn secret nekku fi kullu ndaw itamit ku gëm bëre gëmal ne itamit gëmal sa bopp gëm entraînement te du nelaw fulla ak fayda kese lu des yëpp ay complément la ci biir loolu aussi damay wax ne yéen waa Diofior ngeen ngeen jàppale seen mbër yi parce que ñun ñu ngi ci ci ci affaire yi xam nañ ni muy demee ñu ngi dégg waxtaan ñu ngi dégg commentaire yi mais ci deux mille vingt et un bi ñu nekk foo waxee lamb Diofior nga ciy wax man def naa ci benn publication ragaluma ci dara dama ne yoor au sommet de la lutte simple te loolu moo am. Doudou Sané Ibou Ndiaye Babou Sarr gis ngeen ko bi journal yi génnee Doudou saane moom lañ jox meilleur lutteur ci catégorie poids lourd Babou Sarr ñu jox ko meilleur. lutteurs ci catégorie poids léger bu Ndiaye tamit ci catégorie poids lourd yi mu ngi ci cinq premiers yi donc loolu ndamu Diofior la donc nii nag bu ñu fi nekkee di représenter Diofior di défendre drapeau Diofior yéen waa Diofior yéen a ngi jàpp mais gën leen jàpp ngeen gën a jàppale seeni ndaw xam ne ñii bu ñu amee jàppale bi war am encadrement bi war mun nañ fee indi sax seize rois des arènes waa léegi bu ñu jógee foofu Doudou Sané le 15 mai 2021 Doudou Sané dem fi nga xamante ne moom mooy gaagi Serif ñu tegoon ñaari oto mu jël lamb ji ci kaw général bu Malika oto ak ni mu réyee Doudou Sané lamb jooju avant mu koy jël Doudou nan waajale waajalee lamb jooju. waaj rek ak sama mbokk. Mhm. samay staff. Mhm. waaj waaj bu métti tamit. comme làmb yi rek. ni ngay waajee lamb yi pour bëre loolu nga waaj. Mhm. ndaxte tamit dama wut doole dëgg. ndaxte lamb boobu ku la wax ne musique dina ci dox mhm. mun na cee dox de mais du ci bëri mhm. mais doole bi surtout gis nga nit ki euh, boo amul doole luy manqué ci yow day bëri ndaxte sëriñ ñaan kese la mun mhm. ñaanal la nga am te itamit euh, am naa ñaan jour boobu waaw te itamit liggéey naa doole bi ndaxte dama doon def trois séances pour préparer kii bi rek làmb ji rek. kon Doudou est-ce mu ngi doon woor. <laughs> war naa tuuti de <laughs> ah. tuuti laa war cinq jours laa am. waaw ñu off trois séances léegi continué. waaw trois séances si koor moom. trois cinq jours kese laa war. <laughs> parce que di waajal oto yi chaque jour nga door trois séances. non du question waajal oto yi sax. Hmm. mais waajal saison bi waajal saison hmm. ay mbër yu ndaw la ñu. Hmm. tout le temps parel moo ñu war ndax itamit dañuy toog ba combat bett ñu durant un mois wala moins d'un mois ñu xam nga loolu mënatoo préparer kon boo parewutoon doo dugg ci loolu doo dugg ci combat boobu loolu kese la wax nga dëgg loolu la ñuy wax mbër bu ndaw du du du du préparer day pare mais duudu bi mu demee daan ki nga xam ne moom mooy général Malika final jël oto yi ñu jox ko oto bi gën a yànj duudu saane bi mu jëlee oto yi ban yëg-yëg la am itamit comme lu ñëpp kii. Mhm. lu ñëpp bëgg suñu borom sedd la ko da war a kontaan. Mhm. waaw kontaan laa fa yëgoon. Mhm. damaa kontaanoon carrément. mais tamit euh, lépp ci lu yàlla la rek ndax yàlla mooy ko namm ci ñun. waaw léegi du jël na oto bi bi mu yëg see joof yor nan dañ ko teeroo. mais gars yi gars yi ñoo ñëwoon sax ndaxte moment yooyu damaa waroon compétir ji te xam noonu naa bu ma yëg see joof yor. Euh, pour ma jógaat pour compétir yi dina xaw a jafe mhm. te itamit làmb suñu métier la loolu lañu bëgg itamit boo bàyyee weekend boobu jàll mhm. amaana du dëpp si waat beneen weekend ngay daw jiwaat kon itamit liggéey lañ ko def moo tax bu ñu amee tey sax suba mhm. dañuy demaat pour amaat ndaxte loolu loolu ñu war waaw léegi ñu gis ne bi nga jógee ci oto yi mooy li ma doon wax rek au du ni nga ko wax métier nga ko def au lieu du dem noppalu dafa enchaîné ñëw fatik le 16 bi moy lamb bi ko Toubacouta di daan mais lamb joju man si ben affaire la buga revenir daño gis lamb joju nga tel nga ñew teel a ñëw yow ya fa jitu mbeuri di duggu di duggu di duggu di duggu ñu jéki jéki ki nga xamantene mom moy Ibou ndjay eubul yi si ci lamb ji té ñu gis na rendo ren yaak mom dajewu len si ben lamb ki bu démé sétani fé ké dem di sétani fé communication bi yow ak Ibou ndjay ba ngeen di wara mëna dajé ci si lamb ñi naan Ibou ndjay na dem comme ce comme du Doudou ñëw na ba paré loolu nu mu demee noonu ba erreur boobu am yéen ñaar ngeen fekkante si benn géew. non xam communication moom euh, maak Ibou Ndiaye dañuy déggante pour affaire dem làmb. Mhm. suñu benn tons sama benn tons lañuy ñuy déggante kooku di déggante ak Ibou Ndiaye di déggante ak man. Mhm. mooy intermédiaire bi. waaw mooy intermédiaire bi. Mhm. kooku nag mu ne jour boobu woo na ma jotuma. mais ma ne ko waaw loolu mun naa am. ndaxte man six heures du matin mm-hmm. la ñu quitté si si làmbu gaage ba ah. bu ñu yegsee ay dix heures mooy ay neuf la mooy jot mm-hmm. Fatick mm-hmm. Euh, ma tëdd nelaw di daalu gaa yi ñëpp si man ma tëdd nelaw man sama portable nu muy bëri appel moo tax ma feewoon portable bi pour daalu xam nga làmb mënoo dem te récupéré te tamit nelaw foog nga nelaw mhm. lu doy mhm. moo taxoon ma fay sama poral mhm. après ibu bu mu ñëwee fekk ma si làmb ji moo tax mu dem ndaxte moo ma yoroon moo waroon bàyyi ma dem moo tax yéen moom moo la war a may instant bi boo leen dajee si làmb instant yi bu ñu dajee si làmb mooy buddi sama béjjén xooliwaat beneen làmb waaw donc noonu la demee yéen di ngeen di dégganteeg seen benn tons ma yaakaar yooyu nag war war na war ngeen koo mën a éviter parce que di ngeen ko waxee boo leen moyantee si lamb gars bu buñ buñ leen buñ leen kiiyee mën nañoo jël seen licence. at leen man leen ah, am na. Mhm. man bépp mbër bu ma war a may bu ma ko fekkee si làmb damay rocc ci sama béjjën dem si beneen làmb mhm. ndaxte làmb yi jeexuñu. Mhm. mais bépp mbër bu ma fekk nag ci géew. mu war maa may. bu diwul béjjënam dinañu bëri. ne te itamit sama licence xam naa luy aj aj nit ki trois mois mu toog bëréwul xam naa nu mu mel moment yooyu dund naa ko mu métti trop ndaxte boo xoolee lamb bu ma dugg yàq mhm. lamb bu ma dugg yàq ba moment ba ba kii bi dañ maa tere lamb yi gars yi bu ñuy seetaan ma ci kër gi mhm. ndaxte itamit mënu maa supporter que mhm. seetaan ni kese toog noonu di seetaan ay mbër ñuy bëri mënu maa supporter loolu donc Doudou Sané moom ci lambam ay maye nekkatul si làmbam soit ki ñi mu war a mayanteel nañuy éviter di di daje si benn làmb loolu mooy li nga bëgg a wax en résumé. ma ne ku ma war a may daal. Mm. bu ma ko fekkee si làmb damay roo ci sama béjjën dem xooliwaat yeneen làmb làmb yi bari nañu Dakar. Mm. bari nañu Sénégal. Mm-hmm. foo bugg a bugg a bëree mm-hmm. boo taalee sa oto bëree ji mais min wi boo ko jógee si làmb mun ngaa bëree jiwaat si beneen làmb mm-hmm. kon itamit ooyee la problème léegi Doudou Sané ba tey ci saison bi wala ñu décortiquer saison deux mille vingt deux mille vingt bi Doudou Sané moom moo ëppale ay drapeau Sénégal yëpp mais moom moo ëppale ay drapeau dakaar ndax fi nga xamante moom mooy fee daa mel ni moom moo fa jël ñetti drapeau moom moo ëppale ay drapeau arène Adrien Senghor final benn yoon fi nga xamante ne moom mooy terrain gaal gi mais Doudou Sané ñàkk daanu nafa ñaari jël ya nga xamante ne amateurs yi ak supporters am bi dañ koo mere. mooy demi final bi moom booy bi mu yenu di di jiitu ak ak final bi ak ak kii ak Serigne Ndiaye. d'abord ñu euh, commencé ci final demi final bi yaa ko waa waa ji nga yéen ba pare daanu. Euh, maa ko waa euh, hmm. bu ñu meree si loolu. Hmm. damaa jàpp ne du ñu ay supporter. Hmm. mais man nga ne fans Doudou la. Doudou di def fulla ak faydam yëkkati waa ji ñu ne moom moo jiitu. ndaxte loolu la ñu wax. ngeen xool video yi man loolu duma ci détail jëlu mm-hmm. jàmbur duma ko saldel mm. loolu moo am mais tamit Doudou Sané lan la bëggoon daar voilà moo tax tamit boo nekkee supporter bugg a mer ci loolu mm-hmm. yow la rek waaw non mer waaw pas mer comme comme comme critique la de négatif mais li nga bëree gënalu leen boobu sax kiiwuma mais beneen bi <laughs> beneen bi final bi yaa Serigne Ndiaye ñu ne final bi yaa Serigne Ndiaye moom dañ ne <laughs> Doudou Sané ni mu bëree baaxul <laughs> loolu mun na am ndaxte loolu la ñu gis duusaane duusaane lambam léegi la yéex rek Lamine barki siñ Bàmba laa la koy waatal di ah sama lam mu maay lay toog di benn benal di calculer di benn benal di calculer man sama làmb maxinil musuma ko nangu ci làmb toog ba ñu mitaan sax problème la woon boo xoolee samay lamb yu bari ay une minute deux minutes mm-hmm. bu bëri bëri ay trente secondes mm-hmm. ndaxte instant yi ñu nekk dañoo mm-hmm. dem ba xoolal instant yi ñu ñu topp coow bi di bëri affaire yooyu moo tax ñuy benn bennal kon Doudou Sané buy bëree ba daanu ci biir bëreem xam nañu ne Doudou Sané day day dox ci kaw mbër kon loolu mooy bërëm kon bu dee demee itamit dox ci kaw mbër am ci defet Mm-hmm. ñu ne la taxawal loolu arrangé wu la nga taxaw nit ki daanaat la mm-hmm. ñu ne la demal mm-hmm. ndaxte ku nekk loolu la ñu wax <laughs> bu ne leen taxawal nga taxaw bi mu daal la ah. ñu ne la demal boo demee tamit mu daal la du ñu xamati lan la ñuy wax mais final bi final bi yaay Serigne Ndiaye <laughs> gaa yi dañ na dangaa përax përaxee combat bi arbitre dafa sifflé rek nga daw si kawam est que du woon yoon bi arbitre sifflé comme bëre ngeen lu yàggul mu daal la boo leen waxte Dudu berenang nank ba gis buntu mais kéro ma nga fa won ma video yi as bi da siflé nga dox ci kawam padd ko mu moy mais bi nga koy paddaté deuxième padd bi ci la capter sa tank ci kaw djel mm-hmm. la nga xawa mboti mu jital la war la ndom est ce que ni nga beure kéro bi nga ñibsé parce que yeen di nga di ñib ci xol video yi bi nga ñëwé ba sétanal video yi lo jangat yow waaw xam nga tay ñaari mbeur bu ñu dajé ku joomul do daanu waaw lolu amna kon itam njumte moy dab rek ñu mm-hmm. def luñu wara def mm-hmm. waaw di jégalu ñëpp itamit ci loolu mm-hmm. waaw ndaxte métti nañu bëri mm-hmm. ñu may woo téléphone ñi di wax affaire yooyu léegi bi Doudou jógee foofu di jëlaat ay lamb di jëlaat ay lamb mm-hmm. ba tegaat nañ fu ñu aussi ay oto Doudou demaat wuti jaay oto yi Doudou xanaa transporteur la bëgg doon wala nu mu demee noonu <laughs> <laughs> ah waaw waaw làmb la rek. Ah. làmb la rek bu ñu tegee teg bu ko jaar nga dem. Hmm. xam nga tey ga teg cinq la. Hmm. mais tamit boo xoolee boo dépensé loo boo dépensé boo xamante ne loo looy jëlee si làmb yi du ko jar. Hmm. mun ngaa bañ a dem. ndaxte suñu déplacement kese beneen affaire la daa métti. mënoon ne cent mille kese ngay déplacé woo. ak li gars yi di lekk. non non bu question comme déplacement yi kese ni nga war a def ba déplacé wu. dem bëre ji oto bi wala li ngay waajalee. non non làmb ji ndaxte mm-hmm. làmb ji li nga ciy fere. Mm-hmm. say sara. Mm-hmm. booy dem ci kii say carburant li ngay bëgg di dox si maara yi say carburant bi ngay ñib si. ndaxte itamit yàlla def maa boole si ay maara yoo xamante ne. Euh, mënuma leen fay. dañ may ñaanal sans dara. man may dem ci lamb ba paré door a yëkëti jox leen mais mësuma waaj lamb tok ci mara di koy fay mësul am wa loolu mom amna légui doudou comme ni ma ko waxee dix sorties 10 drapeaux 3 finales perdues 3 demi-finales yu mu ñak ak benn quart de finale Doudou Sané meilleur lutteur de la saison loolu la gaay wax loolu la yalla dogal aussi Doudou nan la dundee loolu ak ban yëg-yëg la si am. <laughs> da ngay ñëwaat de. waaw te <laughs> vidéo yi bokkul. waa léegi kontaan rek. Mm-hmm. sant borom bu baax a baax. Mm-hmm. ndaxte itamit ñu bëri bëgg nañu loolu. Mm-hmm. mais suñu borom mooy xool ku ko neex mu jox ko ko. mais du question du ci mën. mais question de sens la rek suñu borom dënkuñu ko. ëllëg encore keneen lañ koy dënk te gëm nañ ko keneen la woon itamit dëmb. Mhm. te ñu doon ko. Mhm. kon itamit làmb rek day tourner bul la rek. Mhm. waaw. du alalu kenn. ok dañ lay féliciter di la encourager di la ñaanal saison bii di ñëw ak yeneen saison yi li ci bëgg nga am ko ñu gën a neex saison bii. amiin amiin mais mënuñoo ñëw ba dem te waxuñu Doudou Sané ak bëre dóor Doudou Sané dafa mel ni bëreegum na ñaata combat. du Sané benn combat la bëreegum di waajalaat grand benn deuxième combat muy grand combat. Mhm. benn combat bi nga am yaa daan. maa daan. Mhm. maa nanu quoi. beneen combat tamit grand combat la woon. Mhm. laa waroon bëri après kii bi ñu arrêté dafa mel ni yaa ak Rhinocéros yéen a waroon bëre. waaw ñoo waroon bëre. mais combat bi bi ñu ko annulé duudu nan la dundee situation boobu waajal sa combat tamit ba mu des ay quelques jour ñu ne la combat bi dootul am. barke sëñ Bamba lu metti mhm. ku mu daloon mënoo kaa xam. Mhm. ndaxte boo xoolee man kaar bu jógee Casamance a yegg si woon na. looy wax ni boo xoolee ñooñu reer nañu. Mhm. ndekki añ door a dëppuwaat. nga xool seen déplacement kese ñaata la. ndaxte boo xoolee kaar gi yëpp kaar gi kese déplacement bi trois cent mille la kaar mm-hmm. pour kaar bi kese jóge oto bi kese trois cent mille la mm-hmm. nga xool nga yi moom boobu man damaa damaa toog ba si ngoon si mm-hmm. euh, sama nijaay woote ne pourtant combat bi confirmé na ba tey encore ñu dem ndugg ji ndugg lépp ba mu des comme ndawal bi kese waaw pour gars bu ñu xëyee dem séeraas affaire yooyu wut mala wala leneen lu ñuy mën a toogee mais tamit bu ñu degee annonce boobu. Mm. teewul nag mun dañuy continuer dem wuti loo xamante ne gars bu ñu yegsee nañ lekk. Mm-hmm. comme wuti ndawal joo xamante ne dañ lekk dañ reer nañ mm-hmm. jekki affaire yooyu. Mm-hmm. ndaxte loolu yëpp dañoo programme woon ndaxte boo xoolee ñu waajoon combat bi ñoo bëri woon. du turu du turu. man événement boobu yaakaaruma woon mbër bu mooy bëreel indi xaaj bi sax. yaakaaruma ko woon na de man ci ay supporter na de man dama bëri ay supporter loolu yàlla moo ko def du ci man mhm. yàlla moo koy def may ñaan nag ñu gën a waajalaat mhm. ñu gën a waajal ñu gën a jàpp te xam ne itamit combat bi yàgg-yàgg day dikkaat mhm. itamit gars nañ gën a pare combat bi bu amee date rek incha allah ñëpp waaj wàcc stade duy ko ba mu fees ñu yëngal ci kaw nag ma gësam si soo ñi si waaw <laughs> ci biir loolu ñu gis ne Doudou am combat am dafay jafe parce que avant combat bi proposé nañ la ñaari ñaari adversaire yoo xam ne dañoo delloo avance bi comme ni ko gars yi di waxee. Mhm. mooy wax aussi gars yi nañ jàpp nañ ñëw bëre ak mbër yi nga xamante ne moom mooy mbëri simple yi parce que ñoom ay champion lañ am nañ supporter mais yeneen mbër yi gars des fois xaw ma dañu daw xam xama nuñ ko mun a waxee noonu. non question de daw la. Mhm. man loolu kese laa ko mun a classé question de daw la. Mhm. Lam ñun ñoo wara ñun mbeuri ñun ñoo wara mayante ay xaaliss mhm. kon amna yenn yo xamantene bokoy ñëwé té bu ga dem mhm. làmb ku ku yaakar yoon bu yoon bu neex da ngay sonal sa bop dara dara neexul ci làmb mhm. bo duggee ci nek mbeur bul calculer lu neex ak lu nakari làmb lepp a metti xey di dem entraînement kese daa métti sagaaduma ngay calculer adversaire yi nga wara jël ak yi nga jël man ku ñëw bu baax na waaw léegi Doudou Sané écritage yi nga la nekk. waaw entraînement yi foofu yaa ak ñoom Eumeu Sène yi nag yeneen gars yi nu muy demee. waaw comme comme écrit yi rek mhm. booloo dajaloo am benn objectif. Mhm. entraînement wut doole. Mhm. yàlla defal ñu sutural ñu ñu am ndam kese. lañuy doxee. léegi Doudou fan la teg bu tam si bëre dóor bi gisoo ne war nga mun a bëre ak ñi ak ñii ak ñi wala da ngay def comme ni gars yi di def duñ lim. non ku ñëw baax na. Mm. ku ñëw baax na mais làmb ji xam nañu suñu adversaire gars yi nañu wàcc ñu bëre nañu wàcc ñu bëre boo xoolee ci gawar yeeg taa yi ku ci mel ni ay ay a sok ay njaaytin gars yi war nga mën a bëre ak ñoom ñooñu la ñu war a dalanteel nag mm. ñu bëre dëgg loolu mooy combat mm. nga xam ne dañ ciy nga xam ne bëre nga dëgg mm-hmm. loolu da bëre public bi xam ne yow bëri nga. daje waaw combat am na tey. Mhm. mais ñu lay jox ñoo xamante ne itamit yow combat la mais itamit. Mhm. waroon na mun a saf daal waroon naa mun a saf. Mhm. ndaxte lamb ji itamit ku ci yaakaar loolu yomb dangay dangay nax sam moom. nañ dalante suñu biir. ñun ñoom wara a mayante ay xaalis ñoom góor a soog ñoom kii ñu nga lim yëpp. nañ jël avance bi. man sama avance bi bàyyul kenn ku ñëw baax na. bàyyul kenn ku ñëw baax na. léegi Doudou Sané objectif am ci bëre door bi lan la. Hmm. <laughs> gaynde <laughs> sama objectif si bëre door lan hmm. si laamu animation kese. Hmm. Sané turon bi laa bëgg. turon bi laa bëgg. doon roi des arènes. des arènes kese. loolu bu ma ko amee rek. wàccoon ak ñëpp. mais Doudou est-ce que xam naa lan moo ko war a yóbbu foofu ak lan la war a def pour dooni roi des arènes. Doudou Sané xam na ko Doudou Sané moo ngi ci tegu ci loolu. Mhm. fulla ak fayda entraînement dem def li la war ci làmb ji. Mhm. kese moo la war a mën a may roi des arènes. Mhm. na te boo xoolee mbër yu mag yi ñu fi jaar ñëpp entraînement kese moo leen may roi des arènes ak seen fulla fayda kese. na roi des arènes binduñ ko ci sant. binduñ ko roi des arènes ci sant euh, sant yi ñoo war a jël roi des arènes affaire yooyu. dëkk yi ñoo war a jël roi des arènes wala dëkk yee ñu war a jël roi des arènes ku am jom am fulla am fayda roi des arènes jomb la boo booy def poussière sax roi des arènes jomb la ça dépend sa comportement ci làmb kese cër bi nga bi nga jox làmb kese mhm. waaw ak ndimalu borom bi jeex na donc Doudou Sané waxtaan bi yegg si na à sa dañ koy sant di ko gërëm dëgg la di bëggee aussi Malick fekkuñ ko fi mais jàpp na si affaire yi boobu ba léegi maa ngi koy sonal di ko woo parce que moom moom daa mel ni Macky Sall jot Macky Sall moo gën a <laughs> yomb nga jot nga jot ko. mais noonu la nag am na situation yoo xam ne position yoo xam ne boo fa taxawee noonu téléphone yi pour nga nekk fi di wuy appel yi balaa nga nekk si WhatsApp bi tout le temps mënul nekk dañ koy comprendre. di gërëm gars yi ñoom Mouhamed dañuy daj si làmb yi ma leen di ruube Maam Sarr ñoo yaroo kobongo yi <laughs> Maam Sarr David taj taj yu ne def na ko def nañ ko fa ak alaaji El bop Ma es El Ndour la ko jof yo di xame mhm. wa makoy koy sant di ko ñun ñun ñuy togal fi gladiateur ha ah. légui dañuy bàyyi Doudou mu wax le dernier mot gërem ñi nga xamantene japp na dañu japp si mbirum Doudou Sané ci saison bi wala ci Doudou Sané en général gaay nga xamantene dañ ci japp ñu bàyyi la nga gërem ñooñu yëpp wa Doudou Sané nak di jaajeufal ñëpp mhm. euh, di sant bu baax sama fan sa club awma sen fay mhm. wa Casamance aw sen fei, fay ndax déplacement bu ñu déplacé kese billahi daf ma marqué de trop aw sen seen wa jof yor wa arrondissement fi be ba jor ñep ñep fu way nek te japp ci mbiru dousane rek dousane mu ngi lay gërem bu la xamé bu la xamul mais mu ngi lay gërem di lay ñaanal jamm fep fo di len di ñaanal jaamu bu baax a baax hmm. itamit eh, di profito di sante sama staff bu baax a baax a baax a la eh, sama ménager ñom Cheikh Ndoye eh, mënuma ka baña lim Cheikh ndoy hmm. sama père père bojan ñom hmm. Adama ñaan ñom Habib Bass gaay ñom ñoom Omar Badiane staff bi ñom grand Ibou bari nañu bu ma limee rek damay juum mais sama gars yi tamit comme ñu may téyal ci cumbukaay affaire yi. si gàmpa yi. ñoom kan ak kan ak kan. ñoom maa góor ñoom Mohamed ñoom Abdou Diouf hmm. euh, ñoom Lamine Thiam euh, ñoom Omar Sarr. Hmm. gars yi yëpp ñoom Moussa Ndong gars yi yëpp mënuma leen ñoom Mas. Hmm. moo nekk si gaale bi nag. nekk suñu nekk sama kilifa ci gàlle bi. ndaxte tamit sama grand frère moo fi ñoom Fall. ñoom Omar Tine nag kooku alias kooku sama doom ndey la kooku yàlla ñëw moo ñu boole depuis loolu itamit ñu jàpp ñu suñu suñu borom def suñu diggante loo xamante ne moom ah billaay kooku mënu ma kaa fay mun ma kaa mënu ma kaa hmm. mënu maa si télé di koy gërëm hmm. ci lu ñu dund non non ndaxte dañoo dund lu bëri te yàggu ñoo xamante hmm. yàlla day def loolu nga xamante ak nit lu néew. Mhm. même pas at. Mhm. ngeen dund loo xamante ne mun nga nekk mun ngaa nekk nit cent ans quatre dimanche doo leen ko dund. Mhm. xam nga des fois ay situation de leen di boolee ak nit. loolu day am. mais kooku aw ma fay am ndaxte itamit ren gi ne awoon lu bari lu naroon xew. Euh, te moo ci jàpp. na boo toogee ba duusaane yi tamit bu nga jël décision bu nekkul benn jël décision bu nekkul làmb mhm. gaa ak kooku mhm. kooku moom franchement man aw ma fayam quoi mhm. ñoom Abdou ñoom raka rakam bi encore ci famille bi lañu ñu bokk ndaxte damay wax ne ñu ma sekkal lamb ji yëpp samay deret lañu ndaxte boo xoolee lu ma métti métti na leen lu ma sopp lu ma bëgg lu ma neex neex na leen ndaxte boo xoolee lamb Bo bo bo boy dundu lamb, jël ñi nga sekkal lamb ji def leen sa deret lolu buy daw siyan yeen kën du leen mënal dara ne dina jema pour yak me du ci mën dara ñi depp bu may and ak ñom depp pousser ñi way andal ñepp depp pousser ga amna ño xamantene itamit suñu borom def na ligéen suñu digante ñi dem na mais ñi depuis buñu and depuis poussière la bu may tàmbali bu ma amul dara lañu ñu ànd kon itamit ñoom laa mun a gëm ndaxte lu nekk dund nañ ko lu nekk dund nañ ko lu nekk dégg nañ ko ci man itamit mais dara ñu gën a suude bu gën a jàppalante te itamit joxuma leen dara joxuma leen dara defaluma leen tous au contraire ñoo may defal kon itamit yàlla rek laa leen di bàyyil waaw moo xam li gën ci ñoom yàlla na leen di yàlla taxaw yéen itamit nag amuñu seen fay suñu borom lañ leen di bayil mu yëkëti leen ba ngeen nekk mu yëkëti leen ba fi ngeen bëgg waaw comme si si site ngeen nekk yàlla ngeen dem ba nekk télé national international sax boo leen ko bëggee suñu borom mun na loolu yàlla na ko def te itamit <laughs> xam-xam baa ngi fi gis nañ capacité bi xam-xam baa ngi fi ndaxte itamit ku tàmbale ren gi sa affaire dox ñëpp di waxtaane international ñëpp di waxtaane Lamyn TV Lamyn TV dara nga def kon hmm. loolu lancé boobu yaa ngi ci yoon bi gënal tegul rek. dina baax incha allah ñaani nag dinañ. muridu laay waaw murid kooku itamit <laughs> xarañ métallique <laughs> murit ah borom Dubaay maa koy bëggee di bëggee gars yëpp. apprenti am yëpp maa leen di siyaar su ma limee rek dama juum. kooku parce que yàgg na maa wax ne damaa bëgg nga dem def interview ak sama mbër bi Doudou Sané demal nga jëlal ma ko ma ne ko non xam nga saa waay des fois du am temps. loolu bu yàgg la. waaw maa moom. Mhm. ndaxte boo xoolee bu mu muy def bu muy tijjee fi atelier am boo jógee école rek fa lay jàdd. Mhm. di daaj rek di mhm. suude. Mm-hmm. na de man loolu laa gëm bu ma ñëwee liggéey rek laa gëm. Mm-hmm. na de bu ma ñëwee moom des fois lu ci ëpp. Mm-hmm. maa moom. Euh, tukki bi moo tax suñu diggante xaw a wàññeeku sax. mais lu nekk ci ñun yendu ci moom lu nekk ci moom yendu ci ñun itamit. moo tax euh, ñu ngi koy ñaanal jàmm fu mu nekk. suñu borom yokk ko ba mu yëg ba mu yëg ko ndaxte borom baax la ku ñàkk ki ñaan la borom bi kese lañ koy bàyyee. ak ok gaynde bi. waaw aca jaajëfal nañ la yow tamit ci <laughs> disponibilité bi ñëw nañ jël sa temps boobu ba léegi nga toog waxtaan ak ñun lu yàgg te wax neexul di wax ñuy seetaan bu dee wax ji am na lu nga xamante ne rafet na ngeen xam ne yàlla moo ko bëggee noonu bu dee am na loo xam ne nag dafa naayisul ngeen xam ne si ñun la ay nit lañ motuñu dañoo juum rek ngeen jéegal ñu ko parce que bu ñu jógee aussi di seet nit di waxtaan ak moom di def émission pour lépp naayis la lépp jaar yoona zaal saal yu borom borom caméra bi ñu ngi koy gërëmaa ah. di gërëm suñu waa dëkk nag waa Kobangoy séeréer ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax mais comme ni ma koy waxee à chaque fois rek balaa maa tëj mënu maa ñëw yoor wax li may wax te gërëm ma waa Kër baay Mosaan kër gaa ngi nii suñu ginnaaw awa mbin Baye mais sib naa nun na fop bëgg a nun ah sant a nun gidma nun daal <laughs> loolu bokk <laughs>